di ko tàmbale benn mbir bi nga xam ne wala benn kàllam bi nga xam ne ñun ñëpp xam nañ ko ñu kay wax idolâtrie idolâtrie moom mooy jëm ci lépp li nga xam ne dafay dem ci lu ñuy wax jaamu ay xërëm xam ngeen ne euh, traditionnellement Afrique euh, fii sunuy maam ay xërëm lañ daan jaamu wala ay xàmb ndaxte ci xeet yu bëri boo demee si joolaay am na lu ñuy wax seen bois sacré boo leen demee ci lëbu yi am nañ seen i tuur boo leen demee ci séeréer yi am nañ seen i pangool ngeen dem si njaago yi ñoom seen i uccaay daanaka Afrique noire yëpp ku ci nekk am nga religion traditionnelle bi nga xam ne dafay ñëroog lu ñuy wax idolâtrie léegi nag kàllaama idolâtrie boobu noonu dama ko gis ci langue politique bi te man wax dëgg neex yàlla dama bëgg chaque fois su may wax ngeen dégloo ma xel Euh, idolâtrie bu noonu mooy lii jëm si gëm nit wala di jaamu nit rawatina nag bu nekkee un homme politique ndaxte xam ngeen ne ci réewum senegal déggoon nañ fi ay mouvement Abdou moo ñu doy Abdou Diouf moo ñu doy ci temps Abdoulaye wadd déggoon nañu fa say mouvement yu bëree nga xam ne daanaka jaamu nit la woon ñu ñëwaat ci président Macky Sall ñu gis ay ay ay kuréel yu bëri yi nga xam ne ay Macky ñu doy ay Macky 2012 ay yi nga xam ne daal c'est la personne pas euh, maanaam euh, idéologie bi nga xam ne ci la ñu war a sukkandiku pour suqaleeb réew waaye si nit ki daal lañuy ñuy def focus mooy maanaam nit ki mooy nekk le seul euh, le seul constant ma maanaam au lieu muy nekk li nga xam ne mooy ay xalaatam wala ay jëfam wala ay doxalinam waaye nit ki la ñuy gën fësal nit ki la ñuy teg ba ma daanaka dañ koy méngaleeg yàlla wala ñu méngale koog yonente wala ñu méngale koog muxadam te loolu dafa nekk li nga xam ne aussi maa ngi koy gis xam ngeen. kii nga xam ne moom mooy Ousmane ko nekk njiitu Pastef les Patriotes yàlla may na ko ay mbir yu bëri nga xam ne jaruñu si jaar ndaxte euh, maanaam lii nga xam ne liggéeyal na ko euh, maanaam jeunesse africaine bi ci conscienta euh, conscientisation mu lépp li nga xam ne dafay jëm ci wàllum intelligence politique lépp li nga xam ne dafay jëm ci wàllum mbooloo loolu yëpp yàlla may na ko yàlla may na ko vision yàlla may na ko gis-gis yàlla may na ko fit yàlla may na ko courage yàlla may na koy mbir yu bëri yi nga xam ne di ko wax daanaka wax bu yàqu la waaye du tee mu doon lu ñuy wax doomu aadama te bu ñuy wax doomu aadama mooy ki nga xam ne dafa am ay qualité am ay défaut bu ñuy wax doomu aadama mooy ki xam ne tamit dafay juum ndaxte am na mbir yi nga xam ne fi ñu ko bëgg yóbbu dafay nekk li nga xam ne pour man baaxul dafay njuróog lu ñuy wax idolâtrie te loolu la ñuy faral di gis di déifier nit lom providentiel n'existe pas xam nga li am ay nit yi nga xam ne yàlla leen teg si benn période ñuy gindi askan ñuy puus askan waaye waru ñu nekk ay nit yi nga xam ne dañ leen di jaamu comme ni ñuy jaamoo yàlla dañ leen di jaamu comme ni ñuy jaamoo yonent ndaxte tey doomu aadama lañ te comme doomu aadama matul te comme doomu ànd aadama dualité la mooy maanaam dafay am euh, dafay am ci moom lu baax am ci moom safaan bi day am ci moom ay mbir yi nga xam ne daal day tax ba ñu koy woowee doomu aadama ndaxte yàlla moo ne nit ku dul juum amul yàlla kott moo dul juum ay mbir yi nga xam ne rek bu ñu ko bëggee teg mu mel ni lu ñuy wax euh, déification wala ñuy muy mel ni ñuy wax idolâtrie loolu dafa mel ni on rend service ndaxte intelligence wala courage wala mbir yooyu noonu warul tax ba ñu yaakaar ne nit ki il est devenu intouchable kenn waru koo laal kenn waru koo critiquer kenn waru koo kenn waru koo wax dara man de Léon Balthazar bokkuma ci ñooñu ndéem man je travaille pour le projet je pas le nier je me suis battu pour des idéaux je me suis bati pour un projet mais man góomu nit yàlla dafa def sam mbopp laa gëm ak yàlla góoma leneen lii nga xam ne nag moo am ci réewum Sénégal nañ def attention am nay mbir yi nga xam ne mooy maanaam fii nga xam ne foofu la ñuy jëm te nu ñuy personnaliser nit man je me dis que am sama devoir la ma alerte di wax ne c'est pas la bonne solution nit daal boo koy topp toppee ko ngir xalaatam bu rafet nit boo koy topp toppee ko li gis-gisam bu rafet nit boo koy topp toppee ko ndir jëfa doxalinam bu rafet waaye bu ko topp mel ni kuy topp yonent wala mel ni kuy topp yàlla borom xel yi nag laay waxal ñi nga xam ne nag am nañ dégg-dégg wax ji yéen ko moom am nay mbir yi nga xam ne nag démb kii di Ousmane Sonko yëkkati na ko ci fii nga xam ne moom mooy conférence de presse bu mu doon amal ak euh, njiitu la France insoumise di Jean-Luc Mélenchon te loolu laa yàgg wax mooy maanaam l'Afrique doit être la locomotive du développement mooy maanaam dañoo war a sukkandiku ci Afrique mais pas de soupargner drapeau lii nga xam ne moom la jeunesse africaine bi di wax mooy maanaam di yaakaar ne am nay nit yi nga xam ne war nañ mën a jóge bitim réew ñëw supparñi lii nga xam ne mooy sunu continent te ñun ñoom ay levier yi nga xam ne war nañ cee mën a jëriñoo pour supparñi ko man foofu laa yàgg di waxee góoma ne dañoo war a changer euh, euh, occidentaux yi ak ak Russie wala chinois ak indiens yi man góoma loolu te wax naa leen ne unité africaine bii nga xam ne ci lañ bëgg sukkandikoo ci la Pastef bi nga xam ne moo yor nguurum Sénégal ci la bëgg sukkandiku daanaka mission bu difficile difficile difficile la ndaxte africains yi wax naa leen dafa mu leen di mandargal mooy lu ñuy wax l'effet de mimétisme mooy roy ak toppandoo ñoom amul leen li nga xam ne dañ koy def muy méngoog seen propre identité dafa mel ni sax ñun dañoo xeeb suñu identité bi nga xam ne moom la ñu yàlla baaxee ba toujours foog ñu fu ñuy wéeru wala fët fu ñuy fu ñuy làqu wala fët fu ñuy fu ñuy ku ñuy topp wala ku ñuy ku ñuy ku ñuy langaamu langaamu moom noonu nag moom la jeunesse africain bi di def rawatin nag ci ñi nga xam ne ñoom ñooy Euh, maanaam euh, fédération de Russie bii nga xam ne arméem jàpp nañ ne ñoom ñoo mën a sauver monde bi mooy maanaam loolu mooy ñàkk gëm sa bopp mooy boo yaakaaree ne euh, lii nga xam ne nasaraan si def nañ ko fii Vladimir Poutine mun naa def lu ko lu ko lu ko raw da leen di seen bopp. parce que wax naa leen ne réew yi amuñu xarit ay intérêt lañ am te ci loolu. Afrique continent européen ñu ngi continuer di booloo ndaxte tey ma may leen benn ivaar benn xibaar réewum France ak réewum Allemagne ñu ngi commencé di créer lu ñuy wax l'armée européenne ndaxte lëkkaloo nañ seen doole te dinañ euh, te Union européenne dina dem ci lu ñuy wax budget de defence commune dañ dem ci école de militaire commune te loolu projet bi nga xam ne France ko bëggoon souligner bu yàgg waaye Angleterre moo ci Angleterre dëggoon tànkam pour bañ mbir mi ni mel am waaye gis ngeen ne comme bi Angleterre génnee projet bii nga xam ne mooy projet de de d'armée commune ginnaaw bi ñu amee seen koom-koom bi nga xam ne benn la am seen koppar bi nga xam ne benn ak situation bi nga xam ne seen xarit Vladimir Poutine créé na ko Union européenne soo moytul dina am armée am te loolu commencé na mooy maanaam am na école de guerre yi nga xam ne militaire français ak allemand ñu ngi lëkkaloo ak ay italien di entraîner ensemble di defandoo ay projet ensemble pour mën a aar Europe mooy lu ñu wax l'Europe de la défense loolu jombul Afrique te pour mu ti mën a nekk mooy kuréel yi nga xam ne am nañ ko foog ñu ñoŋal ko pas ñu koy tas pas kii di jaar gauche kii di jaar droite xam ngeen ne dañuy wax ne euh, suñu division baaxul daf ñuy gën a affaiblir plus ñuy gën a diviser wu te toujours suñuy division la nasaraan si di sukkandiku pour ñoo gën a mën pour ñoo gën a mën a contrôler loolu nag boo koy wax am na ñi nga xam ne doo duñu comprendre fu ñuy waxee ay ay pàccu état ay AS c'est vrai que ne baax na waaye yaakaar naa ne doolee bi nga xam ne moo war a nekk doolu Afrique warul nekk ci ay ay ay entité yuy tasaroo kuy jaar gauche kii jaar droite loolu daf ñuy gën a affaiblir loolu day tax ba duñu peser absolument rien sur l'échiquier mondial léegi nag pour tëj may ñëw ci actualité géopolitique mondiale xam ne jamono yi seen xarit Vladimir Poutine mu ngi ci réewum Chine pour gën mooy dox si ñaari réew parce que wax naa leen ne euh, réewum Chine moom moo tee comme comme fédération de Russie ginnaaw bi occidentaux yi fëggee sanctions yu tara tara tara tara léegi nag Vladimir Poutine wax na lu tax mu song Kharkiv pour créer benn zone tampon ginnaaw bu mu artoo lii nga xam ne mooy armée ukrainienne bi nga xam ne dañuy sox ay ay immeuble civil ci fi ñuy wax Belgorod waaye moom nee na amul sàkkuteefu yegg fii nga xam ne mooy Kharkiv loolu ay waxam la waaye loolu teewul waxoon naa leen ne seen xarit Vladimir Poutine saa yu tegee benn jéego am beneen jéego bi nga xam ne nasaraan si dañ ko teg xam ngeen ne bi guerre bi tàmbalee ba léegi Occident yi dañoo téye seen loxo mooy maanaam dañoo appuyer sur la frein mooy maanaam bëgguñu def leen li nga xam dafay ràngati maanaam gaynde gi Vladimir Poutine waaye bi yoon nag am na beneen ligne rouge bi nga xam ne bu essentiel la bu tëb xam ngeen ne anglais wax nañ ne seeni missile mën nañ ko sox fu leen neex réewum Amérique topp na ci nee na bépp ngànnaay bi nga xam ne jox nañ ko armée bu Ukraine na ci na ko jëriñoo nu mu ko neexee te buy guerre bi tàmbalee ba léegi ñaari at lépp li nga xam ne missile la bu occidentaux yi joxe ñoom dañuy wax daal armée ukrainienne buy songu Russie na ko def ak ay ngànnaay waaye mu doon ngànnaay occidentaux yi français yi ci lañ nekk allemand yi ci lañ nekk ñeneen ci lañ nekk kon beneen ligne tëbaat na mooy maanaam missile attaquant si nga xam ne mun naa laal n'importe où si territoire ukrainien Anthony Blinken xam na ne état major bi ginnaaw bi fédération ba nangu lu mat ay deux cent soixante dix kilomètres carrés ci côté nord mooy fu ñuy ak ngànnaay yi nga xam ne occidentaux yi moom rawatina bu réewum Amérique bu réewum Angleterre fi nga xam ne bëgg nañ koo sox mooy ay yi nga xam ne ay soldats russes ñu bi nga xam ne dafa frontière ko am nañ sañ-sañ utiliser ko pour wax ne li ma leen waxoon ne guerre bi guerre idéologie la te kenn bëggul ñàkk te waxoon naa leen ne chaque jour kii bu tegee benn jéego keneen teg benn jéego ba finalement daanaka ligne rouge yëpp tëb nañ li laan bëggoon indil seen actualité politique ak seen actualité géopolitique mondiale seen xarit la woon Léon Balthazar le caméléon di leen ñaanal wi kanu jàmm ak salaam